ñu ngi masawu ñu tawat ci jàngoro gi ñuy tuddee corona wala Covid 19 ñu ci feebar yal nañ wër ñu ci tawat yal nañ dellu seen sago ñu ci nekk ci kaw lal hôpital yi yal na yàlla fëgg seen bopp ñun ñu ci amagul yàlla buñ ci mus a jot fu mu eggul yàlla bu mu fa mus a egg ñi ci faatu yal na leen yàlla yërëm. yàlla xaare leen aljana seen njaboot gi ñu bàyyi gannaaw yàlla na yàlla teg loxoom ci ñoom ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi sallam waaye mbokk yi nañu xam ne jàngoro gi lépp luñ ci dugal ci li ci bokkul dinañ ko digaaleeg suñu boroom képp ku ko jël def ko ngir utum alal sàkku dërëm di ci def business di ko def mbirum partisan di ko def mbirum askan ak biir kër na nga xam ne doo jéggi siraat lu dul nga layoo kook suñu borom ñu ngi naan fonds yi fon yi fon yi fon yi fon yoo yële miskiin yi mel ni man ñoo dajale suñuy dërëm ak suñuy ñaar dërëm dugal ci biir ngir ñi feebar ñu mën leen a faj wallaahi billaahi watallaahi alal jooju képp ku ko jël def ko noosukaay def ko fowukaay di ko seddoo yow ak say jabar ak say doom ak ñi la jege ak sa mbirum kër ak koo munti doon moo xam ngay sëriñ moo xam ngay taalibe moo xam ngay xalif général moo xam ngay chef d'état moo xam ngay ministre moo xam ngay député moo xam lu munti doon doo dee mukk ci texe doo mucc doo musa wax laa ilaha illallah alal bi di nga ko fajoo ci cancer ba mu jeex alal bi di nga ko fajoo ci ay hépatique ba mu jeex alal bi di ko fajoo ci say soxna ci say doom dinañ ci accidenté dinañ ci daj lu yées lu nekk ndax lan ay alalu miskiin ay alalu baadoolo ñoo xam ne dañ ko génnee ngir jox seeni moroomu baadoole yi ñu faj leen ay doomu aadama nara dajaloo jël fon yooyu lekk ko du ñu texe ba ilaa yawmil xiyaam gërëm nañ ñëpp sant nañ ñëpp gis nañ taxawaay gi gis nañ teew bi gis nañ yitte yi gis nañ dogu gi